ñun ba ñuy ñibbisi ñu jéem a ñibbisi mais dañ ma njëkk avertir foofu sama gars yi dañ man a yow ma ne leen bon j'ai pris parce qu'à l'époque on signait le fameux papier vert là. Hmm? da ngay si y a y a une signature comme quoi da ngay dem liggéey jàngi boo pare nga ñëw. Hmm. donc bu ñu dellu see bon yàlla def ñu affecté ma si benn direction fii la première euh, bi ma njëkk tëral dañu ne. loolu la ñaan sama grand yi bu ñu nee neuf heures ngeen di commencé ngeen commencé neuf heures mais problème boobu laa njëkk a am. mais booy def ni gars yi ñu dafa jóg mais si la bokk. si la bokk. organisation. nga ñëw fa xam nga lan la doo xeex ak ay ay montagne waaw demaatoo loolu la eh, wóor na da ngay wax sànq problème euh, situation ay kon cest à bu ñu amoon. y en a des centaines. exactement États-Unis fépp fu Sénégalais nekk. on est des on est excellent. am na sax benn frère ku nekk États-Unis mais mu comme euh, xaw ma ndax mun naa ko wax par exemple plateforme Facebook dafa créé bu mel noonu. Hmm. mais pour l' Afrique One Africa la ko tudd. exactement One Africa. mais kenn dégg ko. def na lu ne. mais États-Unis la jógee def oui il est États-Unis def na lu bii bu nekk. al Ousseynou Ba pour. noonu. pour ñun la avec avec nos racines avec kii avec avec ak suñuy suñuy code. exact hmm. bu ñu ko defoon tey. généalogie dafay dafay yomb trop ñu ñu gis ko te loolu problème la si ñun mais jàppalewuñu ko donc ñun gis nga yëfi ñun la ñu gën a njëkk metti c'est-à-dire que tukki ci même boo leen tukki quelque fan rek tumuraanke la nga nar a toog foo xam ne bokkoo fa nga nar a toog ba ku dem mm-hmm. dëkk jàmbur mm-hmm. dem ba nekk fa dara mm-hmm. waaye boo nekkoon sa bu ñu la yombaloon mu tuut ah, la lee may nga dem ah mais xoolal rek ñooñu ñëpp dañu dëkk boo xam ne du ci maam du ci ndey du ci bàyyi nga dem yàlla may la nga am benn pour ndoll bu ndaw bu ñu la ko yombaloon sa dëkk man je pense que di nga def di nga di nga. Abdoulaye Wade il avait commencé un peu moo tax. mu amoon donc loolu la ñuy ñaan ñun partenariat la ñuy ñaan ñun partenariat pour ñu accompagner ñu bëri na ñoo xam ne dañu naan bu ñu sañoon dañuy ñibbisi parce que loo am am fële euh, naam foofu ngay foofu ngay yeewoo bés bu ne yaa ngi participé ci économie bi mais as boo ci jëloon def ko fii dina dina am si ñu mu feeñ. ñu koy def ñuy feeñ mais même bu dekkee dina démarrer mais du am finition. Mm, d'accord léegi euh, euh, la solution ah. la solution c'est quoi sans coloration on sait que jéngu tabax d'accord mais la solution c'est quoi en fait. la colo enfin commencé na ci wax. Euh, la solution mooy une